ater yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo toog seen kër wala ñuy seetaan ci réseaux sociaux est-ce que duñu wax ci man ah tey jaaro yeeg montre tey lu ma nekk non non non da sama sama sama tey la àllarba waaw. mais du nekkul ka àllarba kay. déedéet ka rek benn yeneen beneen la ci àllarba rek. <laughs> du nuyu sama sama xarit yi di wax di wax kenn ki ne ko mbaxaneem rafet na. waaye neen dégg naa saa mu naa la mbaxane bi xajul sa bopp xam man damay mel ni ku déggul te dégg naa li ngeen di wax yëpp. Adama Fall jërëjëf kon mu ngi noonu tey la àllarba ni ma ko waxee léegi rek euh, ci biir avant-première de la mi-journée ngeen gis rek xam leen ne àllarba ba àllarba bi moo ko waral kon mu ngi noonu suñuy gan euh, est-ce que du la bàyyi tey nga dalal leen Adama Fall waaw euh, ma ma ma ma ma ma dem. waaw demal rek demal rek xam nga damay bañ gars yi ne xaw ma rouge bi man te déggante wu ñu téléphone dem ak yow. ah rouge nga sol. waaw gis nga de. bàyyi ma la xel sax anam Fall man nag tey moom bee boo rek ngeen kii ma ah. <laughs> maa ngi doon joolaay mais benn benn benn benn benn benn njaago jaagoo fi nekk Paul Richard Mendy maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax chef de cabinet du maire de Grand Yoff Madiop Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur le maire. merci Sista maa ngi lay nuyu tamit mm. di nuyu sama co yi mu fi fekk le doyen Albert. Mm. Adama di nuyu le le coordonnateur du mouvement Ñoo Lank Mm-hmm. également nuyu waa kër gi ma fi fekk nuyu le le maire de Grand Yoff particulièrement euh, sa communauté mm-hmm. et de dire que c'est un plaisir d'être là euh, ce matin et d'échanger avec vous merci. c'est un plaisir de te retrouver Paul Richard Mendy gëj naa leen gis ndax gëj naa Grand Yoff lool wax dëgg yàlla Mor Talla Seck euh, di coordonnateur. Mourtala Mourtala. Mourtala. comme sëñ Mourtala. waaw comme jërëjëf mu gën a leer kon sëñ Mourtala Seck. Mhm. coordonnateur euh, général du collectif citoyen Ñoo Lank. lu ngeen di bañ bëri na de. lépp lu dul yoon ak fu mu mënti jógee rek. Hmm. dañ koy bañ. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant yàlla maa ngi lay nuyu maa si jërëjëf ñu ngi lay fay waaye di jiital ci nuyoo bi suñu papa suñu kilifa bi toog fii vraiment mhm. di ko ñaanal ñaan bi ko Adama Fall ñaanal rek mu yàgg fi téwér ci barke Seydouna Mohamed di nuyu Adama Fall di nuyu mhm. aussi le frère de Grand Yoff vraiment mhm. di ñaan lépp lu ñu fi wax rek yàlla doon njëriñu askan bi allahumma amin mu ngi noonu euh, le thème d'aujourd'hui contestation <coughs> populaire bu ngeen déggee waa wax ji bëri na dinañ ci ñëw léegi léegi. ah doyen affaire yi commencé na de. boot bukki xaj baw la. waaw affaire yi commencé na de. moom ku boot bukki rek xaj baw la xaj baw la waaw te gars yi bu ñuy def te bu ñu comprendre rek après fu leen neex lañ koy yóbbu. ah oui ah dinañ ci ñëw fi rek ci kanam waaye nag euh, ni ma ni ñu koy defee itam tous les matins dañuy xool. li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee si c'est bon du côté de la régie si la revue de presse disponible ñu dem ci sinon ñu dem directement ak suñuy gan. bu fekkee c'est disponible daal ñu dem wala ñu wéy nañu wéy 11h26 minutes doyen Mamadou Sy Albert fan yi defe naa ne euh, du ñu naan actualité bi moom dafa tourner rek autour du nouveau gouvernement. Euh, lu ñuy wax les contestations d'ailleurs la la une des journaux la non bii bu démb bi la détresse des producteurs soble gi moom bàyyi leen koog man rek ba tabaski bi jub si insha allah <laughs> boobu moom boobaa dinañ ko wax bi la euh, mooy li ma doon wax léegi doyen euh, de plus en plus on voit que on parle plus des relations internationales yi ñu doon xaw a ragal yi ñu doon xaw daw yëpp a ngi ñëw on parle de l'Union européenne on parle de beaucoup de ci li nga xam moo di gouvernement Sonko 1 noonu lañ koy tuddee Assemblée nationale qui revient aussi les gens repartent de la motion de censure euh, ni ma ko doon waxee itam fii ci émission bi dama ne parfois dañuy politiciens dañuy sànni benn benn affaire rek benn appart ñëpp së sëkkandoo ci ñëpp di waxandoo. Mm-hmm. mais je pense que c'est le porte-parole du gouvernement qui a commencé celui qui a prêté le flanc qui a parlé de motion de censure donc coow li mu ngi bëgg a xaw a bëri euh, gis naa tamit ñu def ay sorties di wax ak euh, lu ministre Abdourahmane Diouf que enseignement supérieur mm-hmm. compliqué na bien faire mais ñu def ko tempo tempo donc à peu près l' actualité c' est ça doyen. waaw comme ni nga ko waxee moom c' est l' actualité dominante. bon mhm. maintenant comme ni nga ko euh, décliné aussi. Mhm. bon pour l' enseignement supérieur euh, le ministre Abdourahmane Diouf bon mu ngi def visite. Mhm. bon defe naa loolu lu baax la euh, toog na nekk na ministre. coow li commencé woon am léegi il a commencé quand par aller à la rencontre des enseignants des étudiants des travailleurs mhm. loolu démarche bu baax la wane na aussi que moom euh, bon lu ko dese ci année bi bariwul euh, année académique bi ak année scolaire bi priorité bi mooy mu def concertation jéem a sauver le calendrier euh, scolaire. Mhm. loolu lu baax la comme euh, comme approche au moins gérer six mois mu bañ a am perturbation. Mhm. deuxième priorité bi mooy dina def concertation pour def état de la de l'enseignement supérieur en su mu jéem a xool plan mhm. la ñu am au niveau de l'enseignement supérieur bon. Mais cela dit aussi, ça, ben, les problèmes de l'enseignement supérieur sont entiers. Ouais. ah demuñu fenn ah. il faut ñu nangu <laughs> aussi que euh, il faut réfléchir ñu jéem a am des solutions consensuelles. Mm-hmm. entre état bi les syndicats les étudiants. bon mm-hmm. pour l'assemblée aussi c'est l'actualité mais c'est normal euh, à la limite ah. président bi toog na gouvernement bi euh, fal nañ ko premier ministre bi normalement dafa war a dem assemblée nationale des politiques Mm-hmm. déclaration de politique mais maintenant c'est des guerres ah euh, que am na audit fi am na rapport yu ñu war a publier euh, assemblée euh, aussi Benno mooy majoritaire bon donc situation politique bi dafa laaj ku nekk mu ngi préparer bon comment gérer la déclaration de politique général parce que en mm-hmm. enjeu bi yëpp loolu tant que Ousmane Sonko demul ci assemblée xamuñu déclaration de politique générale duñu xam réellement lan mooy objectif gouvernement bi ak lan mooy objectif président de la république. Mhm. bon Benno aussi moo yore majorité c'est sûr et certain que bon dañu xëbal euh, waa PASTEF euh, ak gouvernement bi que da ngeen ñu war a respecter su ngeen ñu respecté wul ñun ñoo am majorité mën nañu voter motion de censure donc ku mhm. nekk day bàkku euh, je pense que Benno def na communiqué aussi pour diir que bon ñoom euh, ils sont là où Benno mhm. bougéwul dans ses options c'est-à-dire respecter les institutions respecter la séparation du pouvoir loolu bu amee bon jàmm euh, dina am diggante pouvoir ak euh, ak assemblée maintenant on verra est-ce que Ousmane Sonko dina dem en tout cas il n'est pas obligatoirement tenu tenu d'aller faire une déclaration de politique générale c'est mm -hmm. pas une obligation ah. assemblée mënu ko obligé pour mu def déclaration donc c'est une histoire d'intelligence mm-hmm. ah s'il y a de l'intelligence entre gouvernement bi ak assemblée normalement mhm. euh, déclaration bi dina am le vote de la loi d'orientation euh, des finances dina am euh, les députés vont travailler sur les projets de loi du gouvernement loolu mooy norme mhm. dans les six mois maintenant nag kenn xamul bon on est en politique on verra comment le gouvernement va gérer ça et aussi le président de l'Assemblée parce que fu ñu nekk nii moom le cas peut-être est inédit c'est-à-dire que l'Assemblée est majoritairement dans l'opposition mm-hmm. donc ils ont intérêt à avoir une approche intelligente mm-hmm. hein, respecter pouvoir législatif euh, le pouvoir euh, exécutif s'il y a respect mutuel je pense que au moins on a quand même euh, a priori un mm-hmm. président de l'Assemblée nationale qui nga xam ne il est Bon, il est serein, il est, responsable, il est c'est pas quelqu'un dans les extrêmes. kooku soo ko amee je crois que même président la République toog na ak moom mm-hmm. lu ñu jot waxtaan day wane ne que xëy na y aura pas de conflit comme ni ñu ni ñu yaakaare mm-hmm. bon peut-être l'autre actualité maintenant c'est vraiment l'actualité pour man mm-hmm. euh, la le président daje na ak Union européenne. Ouais. bon il y a eu aussi des relations mission euh, aux États-Unis États-Unis sax débloqué na plus de près de trois cent milliards de francs CFA pour soutenir le Sénégal. Mmh. bon euh, d'un autre côté le privé national daje na ak président démb. c'est vraiment l'enjeu politique. c'est pas du tout l'Assemblée c'est pas du tout euh, les histoires de motion de censure ouais. non le vrai problème c'est quelle stratégie de développement le Diomaye nar à fait je pense que ça bon laaj na quand même euh, pour man il a pris la bonne direction ça c'est clair que euh, mm-hmm. il faut changer la l'approche de coopération il faut replacer le privé au mm. cœur du développement mais loolu rek il faut dàkk Sénégal liggéey pour xool euh, ban stratégie la ñu war a war a war a am. Mm-hmm. je pense que loolu moom des na bon j' espère que euh, le premier ministre bu demee ba def sa déclaration de politique générale dinañu xam. qu'est-ce qu'ils vont proposer aux bailleurs de fonds. Mmh. c'est quelle stratégie la ñu nar a beneen bi c'est les privés euh, le privé national ban stratégie lañ ko nar a proposer. les syndicats, pareil. Donc je pense qu'ils euh, sont sur le bon chemin. Maintenant, le, le, plus difficile reste à venir quand même. C'est la mise en œuvre. <laughs> C'est la mise en œuvre. Parce que, euh, bon, les. les on peut la mise en œuvre qui fait. Bah, bah, boys là le disent, hein, dans les technotech. la banque, elle a, elle a son schéma. Ouais. le FMI a son schéma. Mhm. l'Union européenne a son schéma. tout à fait. mais ñoom mënuñu la wax le rek demal demal on est derrière toi non. Mhm. balaa ngay toog dañ lay wax ñun fii fii la ñu bëgg nga jaar. Mhm. yow nag est-ce que am nga capacité pour proposer autre chose euh, je crois que c'est tout l'enjeu avec euh, avec Diomaye bon il a été courageux quand même. Hein, mm -hmm. en disant qu'il faut repenser. il faut repenser les accords. Ouais. Ça quand même, je pense que c'est un bon départ. Ben, il faut, son, prédécesseur, il n'avait pas dit, mais est-ce que dans la faisabilité, c'est ça qui, fait, qui posait problème Ah oui, c'est clair que... Parce que nous parlé de rupture, ils ont dit euh, que nous il y a des ruptures et de plus en plus, on voit que c'est un peu, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est le nœud de l'affaire, hein. Mouy Wade, Mouy mm. Macky Sall, mm-hmm. ku nekk ci président ñu euh, jiite Diomaye ils avaient une grande volonté. mais ñu toogee au club de Paris bon dañu teg seen affaire ci suuf. Mhm. léegi est-ce que Diomaye dina am le courage. d'aller au bout de sa logique je crois que c'est c'est en tout cas la grosse grosse en tout cas Sénégal am na chance pour dire que man euh, Wade jaar na fii Macky jaar na fii résultat baa ngi nii. Mhm. man mënuma jaar ñooñu fi ñu jaar feneen laay jaar. tout à fait mais il faut argumenter mmh. euh, par, par, exemple euh, je, je donne juste euh, l'exemple hein, de euh, le partenariat mmh. s'il est inégal et que am capacité de prouver que ça c'est inégal et c'est injuste mmh. mais les bailleurs là ils peuvent te dire comment faire pour c'est comme la dette ouais. Abdoulaye bi mu ñëwee il a tout fait pour négocier la dette. Mhm. il a tout fait pour négocier par exemple euh, l'éducation lu ñu mayul woon juuf may nañ ko Wade mhm. donc c'est des négociations mais nag ça quand même ça demande à mon avis hein, ça demande vraiment de l'expertise et nga am pertinence ouais. que ñoom ñu ñu d'accord ne que li ngay wax mën nañ ko gëm mën nañ la gunge mhm. euh, bon c'est au Sénégal aussi de prouver hein, que <laughs> qu'on est capable de choisir notre euh, notre chemin. d'accord euh, oui euh, actualité bi moom euh, euh, ci loolu lay tourner mais bon. Mhm. en tant qu'acteur politique soo xoolee par rapport à la démarche rien n'a mhm. par rapport à la démarche amul benn rupture. pour pourquoi amul rupture parce que on pensait que ñoom suñu ñëwee. du ñu dem vers les bailleurs de fonds. on pensait que ñoom suñu ñëwee duñu dem vers FMI du ñu dem vers Union européenne du ñu dem vers. on ne pensait pas on croyait. parce fermement. parce que ñoom loolu lañ loolu lañ ñu entre entre xalaat ko ak ak ñoom ñu wax ko ñun ñu toog di xaar moom du benn <laughs> n'est-ce pas. voilà maintenant on croyait faut dire les ñu dem foofu. maintenant xam nga soo avant ngay ñëw pouvoir loola neex mën nga wax. mais soo ñëwee ba xas ba toog ci pouvoir bi les réalités du pouvoir da dab parce que munoo doxal réew te doo dem avec les institutions internationales mënul nekk c'est pas possible. bien sûr est-ce que comprendre donc ba mu demee ba xam réalité yi loolu il est obligé d'aller vers même su nekkee dañuy repenser la manière la la manière de coopérer autre il faut y comme ni ko doyen waxee am fulla ak fayda pour défendre les intérêts de la nation sénégalaise et je sais que loolu yëpp je sais que loolu yëpp président yi fi la République du Sénégal. maintenant ci démarche bi aussi dafa am loo xamante ni dañ ko doon dégg Sénégal parce que le président de la République Macky Sall a reçu le premier ministre canadien. Mm-hmm. ci la ànd sàmm jikko yi juddu. muy wax ci mbirum borom ñaari tur yi. Mm-hmm. Barke Dembo Ndiaye suñu président de la République a reçu le plus grand défenseur borom ñaari tur yi <laughs> mais dégguñu benn. borom ñaari tur eh, communauté LGBT rek. voilà la communauté LGBT. <laughs> ñu ñu jox ñu ay image yoo xamante ni dafa nekkoon ci loolu. Eh, eh, te ñoom aussi dafa am lu ñu jaayoon moment bi sa ànd sàmm jikko yi jóge mhm. mu am ñoom ñoom ñi accédé tey am lu ñu jaayoon démb à la place de l'obélisque. ànd sàmm jikko yi c'est pas Mboup. waaw ah. Babacar Mboup ñi accédé au pouvoir tey am lu ñu jaayoon su cette question la mhm. yaakaar naa ni président de la République balaa muy recevoir nit ci audience. dinañ ko def dinañ ko jox fiche audience wax ko ki ngay recevoir lan la lan la lan la jox ko ci ay image yu am importance mu am information yëpp su par rapport à la personne man jàppoon naa ni su nekkee am na information yëpp warul recevoir ko. mais il l'a fait mais dégguñu kenn wax ci peut-être waa ñoo langue dinañ ci wax peut-être. <laughs> peut-être parce que ñoom ils sont de la société civile mais dégguñu benn acteur benn acteur wax ci dégguñu ànd sàmm ji koy jóg dégguñu benn tollé parce que defoon na tollé fii Sénégal. ba ay nit jóg ci battre ci campagne ba mu jóg. Mm-hmm. mais bon on attend on attend on dégoûte parce que foofu aussi ils sont rattrapés par la gestion du pouvoir parce que la république identifié wul borom ñaari tour ak leneen ak leneen ak leneen. Mm-hmm. république ay intérêt lay gérer. donc loolu encore une fois seen kàddu démb da leen a dabaat tey. waaw mais ñun Sénégal dañ bëgg ay faux débat xam nga ñun on est plus sur le. sur sur sur des considérations yoo xam ne solo parce que voilà maintenant beneen mbir à l'Assemblée nationale c'est normal crainte am c'est normal ah parce que Assemblée nationale la ñu gis ba ñu le président de l'Assemblée nationale actuelle toog na six mois opposition bi reconnaître ko mm-hmm. bañ koy fal ay député yi nga xam ni tey ñoo nekk ci ñoo nekk ci pouvoir bi damm nañ fa table jël nañ jël nañ kees gi ba police ak gendarmerie moo dugg pour ñu mën a voter normalement sa normal crainte am. dañuy bañ mu dable. dañuy bañ seen jëfu démb yi dab leen tey moo tax nit ñi dañu war a xoolaat lu bari ci jëfu démb balaa mu lay dab tey parce que jëfu démb yi daf leen di dab tey aw niveau de l'Assemblée nationale moo tax crainte am maintenant nag. Mm. Benno Bokk Yaakaar est-ce que dinañ jël al de la hauteur nekk ay républicain pour accompagner le nouveau pouvoir parce que mooy loolu parce que opposition l'Assemblée nationale c'est le lieu par essence de la politique wala dañuy nekk ci situation bi nga xam ni da ngeen ñoo tooñ dañuy fay bor. gat ba waaw pour éviter de dire <laughs> ça. pour éviter de dire ça. voilà parce que dafa am loo xamante ni précédent la avec l'actuel premier ministre bi nga xam ni moo war a dem c'est vrai c'est pas une obligation mais tradition républicaine la. Sénégal yëpp dañuy xaar le premier ministre d'ici trois mois d'ici deux mois et quelques à l'Assemblée nationale pour mu présenter les orientations yi nga xam ni moom la am mais naan nag. Mhm. puisque le président de la République élu moom. puisque Sénégal moom dañu am président de la République élu ak un président de République boo xamante ni choisi. moo fi am Sénégal malheureusement. ah dama fàtte tey yeewu nga de tey àllarba tey moom ni mu yeewoo moom. <laughs> kii la choisi. <laughs> élu c'est Bassirou Diomaye nu mu tudd Ousmane Sonko. <laughs> merci waay jërëjëf Mourtala. pour dire les choses telles qu'elles sont nag. wallaay ni koy waxee loolu mooy malheureusement loolu mooy sànni maintenant le président de la République élu. moom mi nga xam ni suba moo war a rendre compte devant Dieu et devant le peuple moom moo war a am ay démarches yu mu def pour pouvoir régler cette question là. le président élu. waaw te mi ngi koy dox. xam nga suñu émission bi dafa am solo. parce que fii lañ toog ne le ministre de l'éducation nationale doit recevoir le G7 le ministre de l'éducation le g il les a reçus fii lañ leen invité woon fii lañ leen invité woon ñu toog ñun on a dit solennellement acte bi mu war a njëkk posé mooy recevoir la semaine dernière ah, c'était recevoir le g il les a reçus on a dit que le président de la République élu je précise toujours élu doit recevoir le président du groupe parlementaire de Wallu il doit recevoir le groupe parlementaire de Benno il doit recevoir le groupe le président du groupe parlementaire de Yewwi il doit recevoir les non alignés parce que moom moo soxla ce n'est pas son premier ministre mm-hmm. moom moo soxla moom moo war a ñu recevoir ñooñu waxtaan ak ñoom mm-hmm. wax leen li mu bëgg lan la nekk ci démarche boo xamante ni day indi dal au sein de l'hémicycle c'est vrai il y a ce qu'on la euh, euh, la séparation des pouvoirs mais su loolu amee dañuy weddi seen kàddu parce que ñoom ñoo doon wax démb àll l'opposition que les pouvoirs doivent être séparés. waaw d'accord merci xam nga dugg nga déjà ci débat bi te ñëw ñu dem xool gaa yi ne yenn yéen yi ñëw nañ maa ngi ñu dem xool ñëwaat Adama parce que tey xam naa ni nga yeewoon da da ngaa ndékki moom tey daa ndékki. est-ce que du yow mii sa mbaxane mii moo ko yóbbaale mu taal. c'est-à-dire daf maa attaqué ci mbaxane bi. Eh. loolu tax nga koy wan ne ko te mbaxane mi la day ànd ak li nga sol. waaw gisoo. ba maam Bamba ñu dem <laughs> laay des jours moom. Sud Quotidien la ñuy tàmbali Diomaye cherche la meilleure formule. Mm-hmm. ça c'est euh, avec le secteur privé. privé entre autres. ok Sud Quotidien la mën nañ cee waxtaanaale en même temps de comme on a perdu un peu de temps le temps nga fii moom il faut applaudir mmh. sur la Sud rencontre du secteur privé dellu si waat Sud Quotidien waaw fii il faut applaudir parce que munoo munoo wax ci Euh, baisse des prix des denrées. Mm-hmm. wax ci euh, emploi ak nangam sangam te doo parce que le secteur privé ñooy pourvoyeur d'emploi. Mm -hmm. donc il faut nga waxtaan mooy levier bi. mais mais nag man je pense que kii euh, Adam. Mm. côté bi parce que la fois passée une semaine les l' association des boutiquiers détaillants du Sénégal dañoo invité le collectif ñoo lànk. boutiquiers détaillants détaillants du Sénégal. Ah. dañu invité ci benn point de presse conférence de presse ñu ngi ko defee UNACOIS. man mii par exemple maa jëloon kàddu gi. mais je pense que du ma ñaawlu lii mais dañoo gëm ni ñun actuellement Sénégal dafa toll foo xamante ni da ngaa war a waxal ñi nga war a waxal. Hmm. primo. secondo dafa bëri ñu nekk Sénégal yoo xam presque depuis des années plus de trente ans ñi ngi fii état bi day wax ak ñoom te du ñooñu lañ war a waxal parce que man li ma gëm ba gëm ko mooy euh, boutique détaillant bi képp ku yeewu sa kër ci boutique détaillant bi nga jëm. dëgg la bu baax moom moo la gën a xam li xew ci sa parce que secteur du commerce ñun dañ ci mën a wax parce que presque deux trois ministres du commerce recevoir nañu. Mhm. ñu toog waxtaan ci denrée yi. Mhm. donc je pense que li ci am. benn dangay gis grossiste boo xam ne day jaay détaillant waaw grossiste boo xam day te ñii ñi koy def ñii demoon pale nii am na luñ ci xam ñoom <laughs> beneen bi ci topp mooy da ngay gis état subventionné benn denrée commerçant bu mag jënd ci lu bari stocké ko denc ko bàyyi ba mu raar nga génne ko di ko jaay lu cher manque de patriotisme loolu état mënu ci dara. Mm. Sénégalais bi moo bon bonu boppam ki def loolu moo bon bonu boppam. et loolu je pense que yàgg na am. Mm. ñi fi nekkoon muy am man du ñooñu nga war a reconduire di waxtaan ak waxtaan nag bañuñu ko. Mm. mais ñan lañ war a waxal. loolu dinañ ci ñëwaat ah, léegi secteur privé bi yow da ngaa da ngaa da ngaa reeree sama ndékki ni ko gars di waxee parce que on a vu presque voilà ñuy wax patronat bi toog nañook ñoom euh, lu dul benn du ñaar palais mais gëm nañu daal secteur privé bi on a l'impression que comme oh, comme du ñuy quoi politiciens yi mel daal non du ñuy loolu la voilà ñii ñoom ñu dem ci beneen nañu yaatal te xam ne moom mu ngi al jackpot euh, à 4 milliards ah, pour la commande publique pour la fii laa doon wax fii j'applaudis parce que commande publique bi suñ ko joxee le secteur privé national. foofu dina dina dina dina pour dina joxe emploi yu bari bari bari bari. cest à ñu renverser la tendance. jox leen ko mais ñoom it suñ leen ko joxee bu ñu dem importer ji. bu suivi amul amul sens état chaque jour mu jël ay mesures ci commerce suivi moo ci amul da ngay dugg boutique bi ñu jaay la cent franc nga dugg ba ca def ñu jaay la trois cent. ok. suivi amul. ak accompagnement te ministre ministère du commerce moo ko war a def. moo ko war a def cocktail explosif bi c'est à l'assemblée dégâts collatéraux oh, d'une éventuelle oh motion de censure mu ngi mu ngi mel ni sama bopp bi comme troisième mandat ni gars yi jëlee woon troisième mandat bi du am du am du am mais Sénégalais ñun dañ ñun daal nangu nañ daal. di ñuy jox. en doyen dañuy jox appareil dañuy jox rek ne ay ca. bu ne on ne parle ballon de sondage quoi. waaw dañuy sondé xool ba xam ah bu ko defee ñu ne fi ni itam ne ci rek di wax. rek pour ngeen fàtte ñoom li ñuy def. le diable est en détail. yow ah loolu yaa ko waxee Adama Fall. pour nit ko man man man man Kandi laa woon. génn na de. wax na dëgg de man Kandi laa woon awata ah, euh, yow yaa wax loolu man wax <laughs> je pense que il ah. faut il faut beaucoup prier pour déjà ce hmm. nouveau gouvernement c'est-à-dire il y a des questions politiques qui sont en train de de développer hmm. ils savent qu'il y a des questions urgentes qui sont là et Diomaye est en train de faire des démarches et ou d'utiliser une approche boo xam ne bu am solo donc la rencontre avec ceux qui ont les leviers de développement c'est important, important. maintenant naka la ñuy def ba loolu mën a solutionner c'est ça la grande question et c'est là où attend Diomaye et son président et son premier ministre. ah di gis nga ah. mooy la doon wax. Ah, le et le président choisi. non non mais. wax ma loolu mais nañu nañu nañu fexe. dégg nga waa fexe son président. fexe ba ba gunge leen ci démarche yi nga xam ne ñu ngi koy entreprendre. Mhm. je pense que Sénégal fu mu toll nii loolu lañ gën a soxla. nañu teel communication bu baax bu leer. voilà c'est Sénégalais ça. ñun le problème qu'on a tout le temps. Mm-hmm. avec ñi jiite. Mm-hmm. c'est ñu koy joxee moo baax am solo. Mm-hmm. dañuy ñun dañoo mën a attardé ci détail. bilaay moo ñuy tardé quoi. te question comme comme kilifa gi. Euh, ah, père li mu wax sànq. Adama père dafa wax lu am solo. dafa am ay questions yu ëpp solo. par exemple population bi saisir nañu il y quatre jours surtout waaw parce que ils sont en grève mois. agent yi ñu ngi def grève. mais loolu motion de censure recevoir woon ñooñu sénégalais yi mën a am extrait ak kayitu juddu. Oh, ak lu ñu suulee seen néew. ak au moins ñiy ut ay ay casier nga xamante ni. loolu tey dafa taxaw dafa jam doo dégg ensemble ko ko wax de ay motion de censure la ñuy pourquoi je dis. il y a des yoo xam ne c'est des questions les plus urgentes. c'est ça et ils régler ces questions là. cest le temps de la politique dañ ko wees. dañ ko wees il faut être dans ah. l'œuvre. ak tontonte bi aussi. voilà loolu dañ ko wees. ku jiitu da ngay bàyyi tontonte taxaw. da d'accord que y a un projet qui nous a été vendu ñoom ñoo ñu mm. proposer un projet. Mm. maintenant nous attendons que ce projet se réalise on a. et on kenn amul quoi que ce soit avec ñoom. li ñuy xaar nag mooy nañu fexe. Mm-hmm. ba dimbale ñu. ba jox ñu déjà les bonnes solution mm. pour que les sénégalais approprié ko. mën ko mm. doxal Sénégal loolu ci loolu la ñu. loolu la ñu soxla ñu dem ci beneen ñu su livre bi réeree nag. libre solution. Adama <laughs> Fall. Adama Ousmane Sonko. le projet la rencontre on parle que ça li ñu doon wax sànq rek doyen presque loolu la ñuy waxtaanee tey ci journaux yi. Vox Populi ñu dem ci beneen rapidement parce que man contestation populaire yi moom. bëgg naa mu gën a yaatu tey. waaw surtout. pas Grand Yoff coow topp na Padois Grand Yoff. Padois semaine dernière ñoom ñoo nekkoon à la une. c'est normal. Bassirou Diomaye Faye travaille à apaiser le climat social. waaw ah, ça on applaudit. tey ah, <laughs> eh président Macky Sall ngi nii waaye ndeysaan. <laughs> ancien président ndeysaan. il a été au Maroc. climat social bi dafa war a apaiser wu. war a apaiser wu ça va ça commence à calmer. non si calme non en dañu toog di xaar. calme wu Sénégalais toog di xaar di déglu. mais nag mais nag man dama jàpp benn affaire mu ci mën a joxe sama affaire ah bi dama koy chaque jour fu am la mais fu am téye la gis nga. Hmm. mënuñu am lépp jàmm. bu doon suuxat ay sax bu demee ba jot caq. day bëgg jàmm day bëgg jàmm foofu. et eh, je pense que actuellement dañoo war a jàngat ci naka la ñuy opposé wu. Hmm. ak naka la ñuy utee ak lu mënti xew. askan wi moo moo moo joxe droit wam ci ay bureau de vote la ko joxe. bi ñu ko joxee ba pare nag fii ñu toll ñoom comme ni ma koy wax chaque jour ñoo doon ànd nekk di xeex tey bu ñu ko jotee ñun def duñ def lu accompagner leen. Mm-hmm. mais jàmm nag du tey lañ ko war a xam. jàmmu Sénégal du tey lañ ko war a xam et man question bi dama ko ci félicité parce que mënul liggéey san jàmm. bu jàmm amul voilà mais aussi nañu xam ni. mënul liggéey san jàmm ils sont au pouvoir ils ne sont seen comportement opposant yi dañ ko bàyyi. ci naka. waa à dire waaw xam ko léegi doon dem ci beneen. mooy Adama daal. Adama xaaral yow moom daal daal. Adama Saare wax rek. parce que nag moo Pastef. non Saare moo taal daay bi. moo wax waxi waaw Saare moom moo taal daay bi moo taal daay bi lu wax yow pour yow selon vous. non moo doon menacé ay motion de censure rek nag. amee na pouvoir y a y a des choses yoo xam ne woo ci. am na yoo xamante wax buy taal daay kenn du ko wax ci digg àll. dañuy préparé wax ji de le général Tine booy retraite sans la sans quoi waaw mën naa de l'armée yow moom gérer leen seen bopp rek la l'armée bu ñu yoon nag ci yéen <laughs> Abdou Mbow revoilà Abdou Mbow fan yi moom tam mu ngi génn de président groupe parlementaire mm. bu euh, Benno un pacte de stabilité sociale en gestation d'accord ñu xool beneen critique le parti alimentaire à la peau très dure du grain de sable dans les GIGN ah les Jeux olympiques de la jeunesse là. Hmm. avec Ndiaye comment il s'appelle encore kii Ndiaye. Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye. son cap ah ouais. partie alimentaire boobu am na solo document attendu. Hmm. Sénégal xiif dafay am quoi. ah mooy yow Sénégal xiif dafay am. li ëpp ci famille yi ñiy joxe lekk ci kër yi di joxe dépense dañuy xëy outil.

ko moom. Ah, dafa di lépp cher li tax yombul tamit. Mhm. du commerçant yi kese li tax yombul tamit y a des gens qui sont là dans ce pays. Mhm. des étrangers. Mhm. ñëw fii ci dëkk bi. di ñu imposer seen i loi ñun ñu koy nangu. loolu beneen daf ci am dafa bari ay étranger yu fi yor ay entreprise yu am doole te ñun impôt mooy doxal suñu dëkk te duñ fay impôt. beneen bi ci topp port bii boo fa demee. poor bi boo fa demee dafa am ñuy fay ak ñu dul fay. waaw da da da ngeen di bi c'est anormal. li gën a simple mooy da nga dem ci boutique bi kii jaayee la suukar juróomi dërëm kële jaayee la ko. c'est ça. mooy li nga doon manque de contrôle total. am lu ñuy wax moo am ci marché am lu a un problème beneen bi aussi daf ci am gis nga problème sénégalais yi aussi tamit dañ dugg ci produit fekk lu ñu defaree Sénégal nga nga wàcc ko fa dem jëli lu ñu jëlee bitim réew loolu tamit c'est les sénégalais. lu ci mën a am ah ah, a bàyyi xel loolu aussi tamit xam ni mbay moom wala kii mënuñu fixer ay prix ba pare gars yi duñu jaayee lu ne. état moo war a contrôler. te loolu contrôle moo fi amul ñu dem ci ah, beneen rapidement. contrôle daal amul gis naa temps yi waa service d'hygiène yënguwaat nañ waa douane yënguwaat nañ gars yënguwaat oh, mais bon mystère autour de autour de document attendu. Euh, document bi lan la sax jotuma ko xool mooy le décret de répartition des services. ok ba léegi génnagul document bi génnagul quoi. Hmm. ñu ngi utiliser décret bi mais document bi génnagul ba léegi. ah ouais. c'est pas sorti maintenant mën nañ signer bi ba pare c'est mën na nekk ah mën nañ signer décret bi ba pare di xaar. Hmm. voilà mais document bi xool beneen. le témoin. chez Mamadou Omar Ndiaye la DGID lance l'opération. tolérance zéro ah oui. waaw mooy li ñu doon baale. ci hmm. fay impôt et fiscalité bi. par rapport Mamadou Ba DG gérant de FSOL libre après avoir transigé seul Daouda Gueye le DGOL encore en garde à vue Daouda Gueye c'est pas la famille que Bara Gueye waa kii OL. ah non non ah, du ñoom. Bara Gueye Clean Oil la waaw. Ah, sama waajooju kenn bu ko jege. du moom kan Bara Gueye. Clean Oil ah, nit ku baax nit ku baax sama frère la de. nit ku yaroo ngi noonu. mais léegi léegi mi ngi may woo de. mi ngi fay impôt ah, sama xarit ah mi ngi fay impôt ah non ñun dañuy fay mandat d'arrêt international contre Sékou Fofana en fuite en Guinée qui est Sékou Fofana. kilifa conseil spécial du ministre Mabouba Diagne ah, ah c'est un point d'interrogation ça le témoin quotidien moo ko des comptes le président Diomaye Faye fera mieux que ses prédécesseurs vie chère loolu moo loolu nag loolu mooy wax ji emploi des jeunes les organisations syndicales et le patronat s'accordent avec le président Diomaye Faye waaw waaw bu ngeen àndandoo waxtaanandoo rek après dina kii mooy li gis pen wax fii démb ñu dem ci libération le juge désavoue FA génie civil marine aha sa requête déclarée irrecevable redressement de 17 milliards 637 hey, hey, hey. on s'est maintenu affaire SONES-SEN'EAU boobu tamit dina indi wax fii la ko fuy le contrat d'affermage libération. contrat yi daal mu ngi noonu daal man contrat yaa ngi noonu dinañ ko xoolaat ñu dem beneen lii quotidien environnement bande de filao et revoilà Guédiawaye bi mhm. plus de 1000 hectares <laughs> déclassés entre 2018 et deux foofu amatu filao ba jot ñu koy woowee kii l'UMS la communauté layène l'urbanisme sont bénéficiaires à ah bon. ah mais bien sûr. dañoo des magistrats du Sénégal. waaw am nañ fa communauté Layène bu leen neexee je pense que mooy urbanisme cité urbanisme waaw mooy géej gi ko foofu loolu moo naroon indi problème ak ak Layène yi waaw foofu Layène yi moom te boobu coow loolu dañ ko calmé woon nii rek ndax élection yi ñoo moom quoi dina jogaat de ça va c'est sûr waaw ah, son bénéficiaire Mamadou Lamine Diagne AJE l'espace objet de décret de déclassement et un des derniers poumons verts de la région walaay dëgg la mhm. la ah cour suprême examine ce jeudi

bu ko deful woon sax waru ci mën a wax. mais comme def na ko moom vraiment. le patronat et les organisations syndicales en parfait accord waaw ah, nii nii wax ngeen ko ci kaw de nañ xaar pratique bi jeex na ah non non le soleil ñu dem le soleil kii turam bi garaaw na de sur la le soleil Gassiène Moïli sur la renégociation des contrats pétroliers Sénégal peut contraindre les multinationales. ah bon dans le cadre du partenariat loolu doy doon wax léegi le président veut un partenariat repensé le ministre promet un système de santé performant ça c'est le ministère de la santé ñu xool beneen. ñu dem beneen wala jeex. du quotidien tey xarit sa yaram tàng na de. FMI jox nañu journaux yëpp tey. FMI débarque Dakar ah. la délégation arrive jeudi elle va expliquer elle va s'expliquer avec Diomaye et Sonko sur orientations de la politique économique du pays ok le comité d'action en place lutte contre la vie chère xam nga ñun suñu suñu suñu journaux yi aussi doyen parfois gars yi war nañ ci wax xam nga les gens parlent de priorité la vie chère les prix des denrées de première nécessité entre autres yëpp ñu ngi koy wax mais même les journaux bu ñu koy bind ñu mettre ça en médaillon parce que parce que moi je pense que loolu aussi daf ci am solo pour yi yi c'est vrai que FMI c'est c'est c'est c'est extraordinairement important mais quand même ñun li ñu gën a yitteel. gars yi dañuy jaay de. li mais li ñu gën a yitteel ñun. Hmm. mooy la vie chère. xam nga tey journal boobu romb sànq def bool bi nit ñi di xëccoo. Hmm. xam nga ça a attiré l'attention. si loolu la sax loolu actuellement boo xoolee sénégalais yi xam nga li nga wax rek détail dafa bari ci. <coughs> te man communication gisuma lu ëpp fii ñu toll nii ci Sénégal. dund bi ñu ñu oyofal ko tuuti. et man je pense que bu ñu xoolee ba dund bi yokkuwaat tuuti waxuma la émeute mais lu ne mën naa am ci dëkk bi. Ah, ko yàlla parce que pression sociale la boo xamante ni bombe sociale la boo xamante ni parce que nit bu xiifee mën na def lu ne soxla si. ah les ah, événements de 2021 l'ont montré nit moom bu xiifee vraiment les ah, gens ont euh, si. la lañ doon def jël espace yi nga xamante ne lépp dañ fay jaay lekk ndeysaan ndeysaan ay produit produits alimentaires. mais mhm. gars yi dañ ko. goût parce que ils, mhm. ils attendaient juste une occasion pour pouvoir sauter mhm. là-dessus mhm. et ils l'ont fait maintenant gis nga li ñuy wane nii nii ça montre tout simplement que le Sénégal donc am na dans peut-être d'autres ngi lekk euh, à leur faim par contre am na ñoo xamante ne bu ñu yeewoo pour pouvoir serrer les deux bouts c'est tellement difficile très difficile très difficile maintenant il faudrait pas que les gens nous parlent de la cherté de la vie comme ça comme des slogans mais il faudrait c'est-à-dire il faut à un moment donné se départir de l'habit politique c'est-à-dire mm-hmm. que moi je suis citoyen parce que ce citoyen là je fais cette politique pour pouvoir servir cette communauté mm-hmm. dëgg la des fois da ngay xool nga ne ah man kat ni ma mënee lekk nii am na koo xam ne mu ngi sama wet mais am na jafe-jafe pour mën a lekk lii mais naka laay def ba kooku mën a jot ci loolu bari na bari na fii bari na looloo ëpp sax et quand tu entends il te dit dañ lay wax non léegi politique bi waratul di la di di waaw dundal di la dundal yow yaa war a fexe ba li ngay dundee nga yaa koy yaa koy defar yaa koy defar yaa koy wuti. mu nekk à ta disposition. donc ñoom tey vraiment c'est-à-dire ça c'est c'est un appel à tous les Sénégalais. Mmh. que ce soit de de la société civile politique. fi nga mun ci nekk vraiment les gens doivent pouvoir faire de telle sorte. Mmh. que au moins cette autosuffisance bu ñuy wax ñu jéem a yéeg benn palier. wala def mm-hmm. ñaari palier. waaw que ñu bañ a sentiraat ñu bañ a sentir lu mel nii au Sénégal. c'est important et parce que aujourd'hui aujourd'hui les gens parlent de d'une mouvance euh, jeune qui est au, pouvoir et je pense que cette énergie que nous avons cette énergie de jeune là ça doit pouvoir se refléter partout quand même partout ñëpp sawar partout ñëpp sawar nga xam ne boo génnee au moins toi tu sais boo jógee di dem di nga lijjanti ji dara xam nga xam nga xam ñun ñun ñun Sénégal li ñu dañu dañu bëri coono te ñun suñu suñu suñu premier truc de développement c'est le secteur informel te secteur informel bi dañu ko dañu ko néewal doole hmm. li li li li doyen di wax tout le temps dañu leen marginaliser alors que foo ci laal rek à peu près c'est c'est le secteur informel donc nañu nañu xool naka la ñuy def ba développer ce secteur là bu ko defee ñu ñu ñu kii doyen hmm. non disons bon moi je retiens il y a benn titre là le plan de Diomaye. waaw fi ñu nii là il faut un plan. c' est à dire qu'il y a trop de problèmes. Mm-hmm. bon euh, plan bi numéro un bi c' est l'urgence il faut que gouvernement bi am un plan d'urgence moi je crois que bon Wade a eu son plan Macky la même chose Diomaye fu mu jaar il faut mu am un plan d'urgence sur les six mois. Mm-hmm. mais maintenant plan d'urgence bi je pense que il faut enlever du plan d'urgence la question de la baisse des prix mmh. comme niñ ko xalaatee mhm. ta baisse du prix euh, général mënul am dans six mois c'est impossible il faut dire la vérité aux Sénégalais mhm. mënoo nekk soixante ans nga def une économie extravertie tu n'as fait qu'importer nga yeewu nga dans six mois damay régler li ma réglé wul y a soixante ans ça ça n'a pas de sens mm-hmm. donc la question de euh, de de de la souveraineté mm-hmm. économique c'est peut-être sur dix ans hmm? non <laughs> non c'est pas possible non il faut dire la il faut être logique il faut dire logique et cohérent c'est-à-dire quand on logique c'est ça commence par Euh, nga ne par exemple que man li may dund moom laay béy am amul benn denrée oignon tomate euh, riz euh, dugub amul benn denrée bu ñu mën a produire ñun suffisamment et on a eu quand même des des parcours hein. on a eu de gros gros ministères de l'agriculture on a investi dans l'agriculture mais aujourd'hui fu ñu toll nii si on veut cette souveraineté alimentaire la il faut que ñu am une politique sur cinq ans dix ans mm-hmm. et je man foofu lay xaar le plan le véritable plan de de Diomaye c'est-à-dire au moins mu dans les cinq ans mm-hmm. par exemple Mac je prends l'exemple de Macky Sall mmh. benn secteur la jëloon comme souveraineté alimentaire mooy le riz yeah. il n'a pas atteint l'objectif mm-hmm. mais il faut évaluer pourquoi il n'a pas atteint mhm. comment faire pour avoir l'autosuffisance en riz mhm. est-ce que c'est cinq ans dix ans mhm. pour te dire pourquoi c'est compliqué parce que fu ñu nekk nii on a mis tout en place pour importer le riz ñun euh, ceeb bi ñuy dund dañ koy importer on dépense quatre cent milliards par an mais la solution soit nga ne te partenaires la man au lieu may dépenser quatre cent milliards ma jël quatre deux cent milliards may ma dépenser ko ci import deux cent milliards bu ci des ma def ko ci agriculture est-ce qu'on a ce courage là pour dire que damay def deux cent milliards ci euh, euh, ci ci agriculture non il faut oser il faut oser prendre la décision euh, pour pour le pour pour l'importation là. waaw mhm. c'est la même chose pour les autres secteurs le secteur privé bi ñu wax ni bon tu l'as dit les quatre-vingt-dix-huit pour cent de de l'informel des entreprises qu'on appelle entreprises privées c'est des entreprises informelles les quatre-vingt-dix-huit pour cent. Mhm. mais comment régler comment formaliser le secteur privé. donc pour man vraiment les questions de fond euh, sont des questions économiques maintenant il faut un plan un plan stratégique pour pour ne man fii laay dem voilà les moyens comment je vais y aller euh, et ça encore une fois c'est pas c'est pas simple mm-hmm. c'est la même chose pour les questions politiques tu sais pourquoi les questions politiques euh, euh nous nous dérangent tous mm-hmm. c'est que amul solution c'est ça là les gens ils parlent on parle que de politique. 24 heures sur vingt c'est ce que mais, disais, mais tout de suite ñu jël politique teg ko fële. mais ça ne produit absolument rien. alors que politique normalement c'est de la réflexion. normalement. normalement normalement. <laughs> si tu réfléchis en politique tu dois avoir des solutions. Bah, moi je suis un peu gêné. parce que li ñu gis par exemple euh, avec Diomaye mosuñu ko gis. Mm-hmm. un opposant qu'on élit à 54 pour cent au premier tour musul am au Sénégal peut-être même à l'échelle de l'Afrique musul am mais pourquoi pourquoi les politiques ne discutent pas expérience bu ñu am ni pour dire que ñun suñu démocratie la on va modéliser ça ça ñu am benn modèle démocratique ñun ñëpp ñu d'accord sur le plan au niveau consensuel lii mooy suñu modèle kenn waratu ko laal gis nga difficulté Sénégal c'est, à mon avis c'est c'est qu'on est trop dispersé trop amuñu amuñu stratégie muy politique bi muy économie bi muy sociale bi quelque que soit domaine boo jël amuñu benn stratégie pour ñu génne ci alors que bu ñu defoon comparaison bon pour dire clairement les choses les Chinois ils ont un plan sur cinquante ans que les Africains réfléchissent. Mhm. La Chine c'est un seul pays ils ont un plan stratégique sur cinquante ans et ce plan là amul kenn ku mën a ñeme plan bi dañ ko teg ci suuf tu prends la Turquie qui est beaucoup plus proche de nous mais pourquoi la Turquie se développe pour moi vraiment c'est ça les les grandes questions ben c'est des questions de de non c'est que dañuy daje. la communauté. de communauté bi day daj. mais c'est comme ça la force de tous les pays. oui c'est-à-dire dëkk. yow tu es élu pour cinq ans wala kii pour sept ans wala kii pour quatre ans. quel que soit le pays plan bi nga jël c'est le plan du pays. Mm-hmm. gis nga par exemple euh, si tu prends un autre exemple euh, euh, le Maroc mais Maroc c'est à côté de nous. ñun ñun amul ku ñu gën a jege Maroc mais pourquoi le Maroc se développe il faut se poser la question l'agriculture Maroc industrie Maroc transport éducation tous les secteurs de développement du Maroc sont sont stabilisés sont stabilisés pourtant ñun ñoo leen gën a jege ah dans tout l'Afrique là ñoo bokk diine ñoo bokk tarixa ñoo bokk tradition ñoo bokk. bari lu bari lu bari n'a pas plus d'expertise que que on a plus on a plus de capital humain. fii la ñu jàngee y a des différences ah man pour man pour man le Maroc c'est un c'est un c'est royaume la euh, Chine dictature la Turquie presque dictature la ñoom mun nañ stabiliser. mais non non non non non non non non non non non non non non non non non xam nga xam nga man xam nga lu ma lu ma nàkkoonul doyen. on est plus stable. Hmm. on est plus stable que tous les pays laa wax seen programme day dem ba 50 ans fii am PSE bi day dem mais on a vu un pouvoir qui est arrivé pour place qui dit un changement systémique c'est-à-dire tabula rasa loolu mënul nekk dans un état mënul nekk <coughs> programme bi fi nekkoon avant Macky Sall di ñëw moom la def cumul bi boole ko def ko mu andi mu jur PSE. li ñu waroon def ñoom mooy seen projet bii ñuy wax suñ ñëwee dañuy xool li baax ci PSE bi boole ko def ko benn programme stratégique mooy le plan stratégique de développement fii Sénégal dafa amoon plan stratégique de développement moom moo fi nekkoon moom la gars yi doon suivre plan stratégique de développement ak leneen ak leneen moom la ñu boole mu nekk plan Sénégal émergent war a dem 2035 maintenant changement de régime am na l' état c' parce que ñi dox tëgg programme ñu ngi fii ba léegi di ko doxal je pense que la venue de euh, c'est par rapport à ça je pense que c'est par rapport à ça parce que y a des financements yoo xamante ni dafa dem ci PSE bi maintenant s'il y a un changement systémique mais il faut il faut il faut tout arrêter mu dem est-ce que un état doit fonctionner comme ça que que man su ma ñëwee damay def tabula rasa de tout ce qui se passe ñëw andi un nouveau projet boo xamante ni changement systémique la wax. maintenant un changement je pense pas. xala yaakaaruma ni dañuy ñëw def. tabula rasa mënul nekk parce que tu sais lu ñuy wax les acquis. et les acquis il faut les préserver c'est-à-dire le président Diomaye pour rien au monde je pense pas qu'il va s'aventurer à faire table rase. mënul nekk xalaatuma ko. pourtant mënul nekk. parce que tey su fekkee ne da nga bëgg a sukkandiku bëgg a bëgg a euh, rapidement régler des problèmes il faut partir des acquis qui qui sont là. Mhm. et voir par rapport à ce qui n'a pas marché qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent et je pense qu'aujourd'hui ce qu'il est en train de faire sa démarche ce qu'il pose c'est dans ce sens qu'il est en train de travailler maintenant kon buñ ñu jaay non xam nga xam nga le projet xam nga c'est pourquoi je dis je disais tantôt attendons de les de voir il faut pour eux parce que le mm. temps de la politique a évolué génn nañ ci cadre boobu tey xam nga lan la ñuy fa leen di xaar le temps de ce projet que ce projet se réalise maintenant comment ils vont réaliser le projet est-ce que nous politiques on va continuer à les contrecarrer ou pas non moi mm -hmm. je suis pas de ce camp j'étais avec Khalifa Sall mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il disait xoolaat justice bi Khalifa l'a dit dans son programme qu'est-ce qu'il disait développer les secteurs primaires l'agriculture l'eau euh, l'agriculture la pêche l'élevage qu'est-ce qu'il le disait c'est Khalifa qui le disait mais dans tout ça aujourd'hui c'est ce régime a repris le même programme mhm. Et ce qui est important aujourd'hui, l'attente des Sénégalais, c'est qu'aujourd'hui, ce projet, il faut que ce projet se réalise. Et c'est ça que les gens attendent de, de ce gouvernement. Man, je pense que. Je pense que Adam, Adam. Maintenant, li am solo. Mhm. Euh, mooy nanu fexe ba ñun Sénégal wala nanu fexe ba Diomaye c'est-à-dire ces démarches qui les concertations ou les consultations qu'il est en train de faire na fexe ba xool seet ñëpp. le doyen l'a dit tout à l'heure mmh. chacun de nous a été candidat chacun de nous a vendu un projet aux Sénégalais mmh. mais le projet le mieux épousé c'était leur projet maintenant hmm. est-ce que arriver au pouvoir je dois uniquement me suffire de mon projet et mettre tout le monde à côté non c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui a l'in qui a intérêt de pouvoir vraiment se développer mais comment le Sénégal va se développer mais sont avec ses fils. moo tax foofu la leen di xaar. Hmm. man man man je pense que dafa am loo xamante ni bu ñu ci deful attention tuuti dañuy nekk ci une éternel recommencement éternel recommencement bi lu koy waral mon per daf ko wax léegi dafa wax bu am solo dane Macky Sall dafi bàyyi woon autosuffisance ci wàllu ceeb mais jarul muy gudd mën nañ xool lan moo bloqué woon loolu am na lu ci doxoon te bi ñu bàyyi xel nguur gi fi jóge mënuñu wax ni def fi dara d'abord loolu lañu njëkk a leeral am na yu baax yi mu fi def yu baax yi mu fi def alhamdulilah nañ ko tegee de mu continuer di baax mu am suivi am continuité li doxul woon ñun sénégalais lool lañ soxla mu réglé wu mooy question yi ñu fi wax léegi. Hmm. te man ñii fi toog ak ñii di leen opposé wu góob ci kenn am na intérêt Sénégal yàqu wala kenn am na intérêt pour mu bañ a dox léegi pa wax léegi dafa am solo léegi comme wàllu dund la ñuy wax te wax dëgg tamit. donte bu dee état bi day wax ak ñi fi ne dëgg def déclaration ne leen dund bu cher bi xam ngeen lan la ñun munuñu ko wàññi fii ak un temps mais fii tamit ñu ngi koy bàyyi noonu sénégalais yi tamit dañ naan ñoom ñoo ñu waxoon dañuy wàññi dund bi. discours de vérité bi. dañu indi discours de vérité muy communication bu arrogant wul communication bu dal bu yaru boo xamante ni da ngay xam ne ñi ngay waxal ñoo la faloon. Mm-hmm. respecté leen. ne leen kat ñun li ñu gëm bi ñu xoolee li ñu xam wax mooy pour wàññi dund gi d'ici temps la mënagul a nekk léegi. pour pour subventionner lii di si temps la pour wax ak jàngalekat yi ci lii Abdourahmane Diouf def na ko dafa wax dëgg boo waxee dëgg di nga gën a mën a neex a waxal léegi nag beneen beneen problème bi ñu amaat mooy duma ma dem kii du dem hmm. politique discours politique politicien boobu nga xamante ni actuellement maa ngi gis sur réseaux sociaux yi ba tey ñuy continuer di saagante te li ak quasi total yi koy ñi koy def ci pouvoir bi lañ bokk loolu il faut que ñu interpeller leen mënoo leen fexe ba nit ñi duñu wax seen xalaat parce que da wax seen xalaat ba falu ñun dañoo ànd ak yéen di xeex ngeen di wax suñu seen xalaat ñuy wax suñuy xalaat àdduna bi nit mënta wax ba def fi lu defewut te duñ ko wax ak koo mënti doon saagaak euh, menacé ak leneen ak leneen a ci yam te nag te nag maa ngi gis ay image yoo xamante ni nañ ci bàyyiwaat xel li ci président de la république du ci Bassirou Diomaye Faye opposant ñun ñun ñun dañoo habilité pour wax ko. Hmm. parce que mënoo fee nekk tam président fu mu ne nga bëgg a lambar lambar topp ko. dëgg la bay am problème ak ay gendarme xam nga yooyu il ñu wax ko. mu leer ñu xam ni kii di le président Diomaye fay comme na ma ko waxee woon président de la république bu tous les sénégalais la. ñoo ko voté lak ñoo ko voté lu lag te moom ma koy suivre gisaguma mu def acte bu wane ni moom du président wu kenn. Hmm. bi mu toogee li mu war li mu njëkk a def réconciliation nationale la njëkk a def. récemment la fondation Frédéric eh, Frédéric Ebert wooluñu si ñun collectif ñoo lànk ak euh, médiateur de la république pour ñu xool loolu naka lañ ci mën a doxee ak Innocent Estap Ndiaye hmm. pour ñu xool loolu naka lañ ko mën a àndee doxee ci tey bu ko wootee moom ba pare wax ci lanceur d'alerte c'est parce que kooku xam na ni et eh, bi muy def premier discours dafa tudd opposition bi hmm. kon donc man jàpp naa ni des fois buur du am problème mais ñi ànd ak moom yaakaar ni la woon démb la woon wonni na yow boo doon ut bokkut ak boo yoree da nga doon ut jox nañ la liggéey ngay ut xam nga lu fi des problème yii ñu la dicteur naka lañ koy régler problème yi nag bi ci jiitu comme comme ni ñu ko waxee mooy dund gi bu dee munta ne man li may demandé nañu wax ak dëgg sénégalais yi te wax ci arrogant dafa bari parce que dafa créé woon haine Sénégal gis nga li ñu weesu haine moo fi amul mhm. dañoo dem ba ay étudiants di bañante di taalante mhm. ay nit di jamante gis nañ policier bu tëdd civil fekk ko fa ak brique dóor ko. xeen moo amoon xam xeen boobu lu ko fa indi. le minimum de politicien bi nekk Sénégal par des discours arrogants. tout à kon nag ñii fi ne ñu leen di interpeller lu ñu mayul Macky Sall ak waa këram yéen lu ngeen mayul Macky Sall ak waa këram ñun duñ leen ko may ci bu ngeen deful dëgg defoo leen yoon te dañoo habilité pour wax ko parce que dañoo fekkee xam. te da ngeen bokk leen bokk ñu ànd ba. ay xeex yu daan am sax dañuy doon ñenn ñi dañu daan woon naan yéen a war a jug parce que ñun suñ jugee dañu naan ñun ay politiciens lañ et c'est ça la réalité ñun duñ nax askan askan boobu nag tey lan lay xaar xaarul xeex xaarul xuloo xaarul nit sax bu defee lu baax parce que politique Sénégal soxna si nga baal ma xam nga lu ko yàq un day ñëw indi indi indi benn projet bu am solo ci koñ bi pour askan bi développé. Mm-hmm. waa koñ bi ne non buñ koo bàyyee da ci am atu politique. buñ ko def nañ ko yàq. non c'est ça la réalité quoi tey un certain euh, père day ñëw. non day ñëw indi projet. dagguma la sax xam nga loolu damay may ma rebondir rek peut-être anticiper si par rapport ak les. contestations fi ñu jëm fi ñu jëm. moom laa moom laa ko doon bëgg a daggee sax. xam nga xam nga tey à Grand Yoff. opposant xam nga à Grand Yoff. ñu bu baax à Grand opposant non non non je suis gis nga. <laughs> non bàyyil bàyyil ma bàyyil ma ñëw si li nga wax. xam nga ñun à Grand Yoff yàlla dogal na. ñu ngi ànd ak ma jóg pendant depuis 2009 jusqu'à présent. Mm-hmm. ku xam ma jóg xam ni c'est un vrai prototype de Grand Yoff. Mm-hmm. issu des mouvements à fleurs. Mm-hmm. issu des mouvements de la des mouvements citoyens. Mm-hmm. des issu de l'éducation du civisme mu ñëw en 2014 mu ne dama am projet pour defar Grand Yoff pour aménager embellir et paver. Grand Yoff et bu ñuy ñëw 2014. l'axe HLM l'axe axe Patte d'Oie ba feu Camp Pénal boobu moo gënoon métti ci Grand Yoff. est-ce que dina bien sûr parce que artères yi ñu njëkk a laal. en parce que ak foofu noonu moment yooyu noonu kenn daan loon mën a circuler normalement. Mm. c'était tellement encombré. encombré mais yoon may ñu doole jox ñu tous les moyens dañu c'est dans votre prérogative. de pouvoir éduquer la population dans la citoyenneté dans le civisme mu ñëw axe boobu ñu jël ko désencombré ko ba mu set soo taxaw jardin Padois da ngay séen la fa campénage ñu ñëw en 2022 on a commencé le deuxième mandat ñu pavé artères yooyu yëpp ba mu jeex et dugal pavage yi dans les différents quartiers de Grand Yoff mais avant de démarrer cette deuxième phase mmh. ou voire même troisième phase d'opération de désencombrement xam nga li ñu def ñu ne askan bi su ñun la ñu bokk askan bi ñoo ñu fal askan bi ñoo tax ñuy liggéey mais balaa ñuy def quoi que ce soit nañu fexe ba yónnee leen ay notes d'information on a envoyé des sommations on a envoyé de notes d'information mhm. pour wax leen nii le 13 incha allah dinañ démarrer liggéey bi mhm. mais loolu amul ñoom toog nañ fa le 13 c'est le 17 qu'on a démarré les opérations mais ba ñu ñëwee on est venu avec toute l'équipe municipale. si jekk bu rafet parce que on a eu les 4D qui nous animent c'est le désir de pouvoir embellir et aménager notre cadre de vie. et l'améliorer. Mmh. on a cette décision de pouvoir le faire avec tout le monde la détermination et la discipline. Mmh. malheureusement xam nga ñit fu toogee fenn. yaakaar ne fi mu toog légalement la fa toogee day jàpp ni loolu yoon moo ko may alors que le le trottoir est destiné pour le piéton. maanaam ñi dox. ñi dox ñoom ñoom moom trottoir bi. Mm-hmm. tali bi oto yi ñoo ko moom mais marché ñëpp xam nañu kuy def activité commerce danga war a dem ci marché ci marché nga war a dem loolu moo indi waxtaan loolu moo indi en fait. ñu naan déguerpissement bi ñeent moom coow bi. mais ñii di coow mais ñii di coo ñii di coow xam nga xam nga ku la jox ku la informé ba pare ne la dàquma waxtaan xam nga kooku waa na ak yow. parce que dala wormal. Hmm. delloo na la cër gi nga moom. yow mais dimbali ko moom ba nga xamante ne moom li nga xam ne mooy cëram mu daal di ko def. Hmm. parce que à Grand Yoff dans chaque domaine de compétence boo fa duggee le maire Madiop a pu fair des réalisations énormes hmm. si axe boobu noonu on a eu des réalisations énormes soo rombee ba yegg si état civil bi on a repris l' civil. Mhm. et on a informatisé l' état civil. de 2000 jusqu' à 1983 toutes ces années sont dans dans dans la machine. Ah soo ñëwee doo tax soo ñëwee da ngay ñëw demande sa extrait bi jox la ko sans difficulté. sur sur place. sur le champ sur le champ. loolu c'est pourquoi ñu gën a invité vraiment rapidement le ministre des collectivités territoriales. donc ah mu dimbali surtout les agents ñu mën a au moins reprendre le travail que Grand Yoff l'état civil de Grand Yoff fait partie des états civils les plus convoitisés hmm. tout le monde vient chaque jour chercher des, des documents là boo ko weesoo tu as la maternité de Grand Yoff qui a été élevée à un standing extraordinaire donc mais soo defee ay réalisation yu mel noonu ba pare dugal pavage si biir koñ mais askan bi dafa war a réjouir ci loolu war a approprier loolu warul xaar le maire il pose juste quand ils désencombrent c'est les populations qui doivent suivre mm-hmm. donc ci loolu lañ doon woo population de Grand Yoff mm-hmm. mais jusqu'à après mais aujourd'hui il y en a beaucoup d'entre eux qui ont compris c'est pourquoi nous allons bientôt d'ici demain à une grande rencontre pour sensibiliser davantage encore à ces marchands ambulants gën a waxtaan ak gën a waxtaan ak ñoom pour ñu gën a defee bu ñu defee récap mm-hmm. euh, bu ñu defee récap parce que parfois booy wax ak gars yi da ngay dox olof bu set bi ñoom yëg nañ ko. yëg nañ ko jox nañ leen note d'information. nit ñi dañoo xëy rek gis ay nit yu filmé comme ni ñu comme li comme li Mourtala di Mourtala doon wax léegi. Mhm. ñun dañu am dañu dem Sénégalais yi léegi dañu dem ba tàmm manipulation. dañu dem ba tàmm ku nekk da ngay jël sa sa téléphone rek. di filmer ñun dañoo xëy rek. gis kuy filmer naan waa Patte d'Oie ngi nii Barthélémy Dias ak leen di yëkkati. et c'est ça il aucun élan il aucun élan politique. le maire a le droit n'a bi mooy te ñun dañoo toujours ñu wax ko fii vidéo bu génn gars yi partagé am na lu bari loo xam ne moo taaloon dëkk bi te gis bu ñu continuer nii. Mm-hmm. dina taalaat dëkk des gens yoo xam ne xamuñu lu xew dëkkuñu sax Grand Yoff. Mm-hmm. Mm-hmm. dëkkuñu Patte d'Oie xamuñu lu fa xew. politique l'information yaa ñi nga xam ne dinañ la wax les radios sont là les télés et très crédibles ñoo xam ne dañ lay wax dëgg bi ci nekk ku ku gis nga loo ñàkk ñàkk xel wala loo ñàkk ñàkk xam-xam xam nga ne duñ la dégg duñ la xëy dégg démarche métti na nag xëy d'habitude métti na mais la démarche man pour man. waaw fi ngeen mujjee nii pour une large concertation fa ngeen waroon njëkkee. Mm-hmm. non. non man dama bàyyi ma terminer rek damaa jàpp damaa jàpp parce que gis nga nit <clears throat> le problème de Ngor yaa ngi koy fàttali fàttaliku daaw. Mm-hmm. dañ doon wax naan nañu def un dialogue inclusif mm-hmm. avec la population parce que li ngeen di def. population bee tax ngeen koy def vous ne devez pas faire ça sans sans la population. mais tu sais tu sais ku la yónnee ku la yónnee sommation. non ku la yónnee su xaaral rek xam nga sommation. non xaaral xam nga sommation bi. c'est les service techniques. ils sont dañu wàcc ils sont déployés sur le terrain déglu ma rek marchand ambulant bu nekk fi ñu la fekk sa tablier fi ñu koy lal. dañu dem ba ci les le président du collectif des marchands ambulants pour lui donner des sommations yi nga xamante ñi nga xam ne fekk ñu leen sur xam nga yow xam nga après ñu dellu si waat. xam nga benn lu tax di nekk yow yow yow sama sama sama sama goro nga parce que sama jabar jaago la moo tax rek ma. waaw sama awoon jaago la. waaw la Maria maintenant ma wax dama ne. bu mënoon na ñàkk sur la démarche. mënul ñàkk. non si xam nga tax ma ne la mënoon naa ñàkk. ñu dajale woon fi nga mujjee concertation bii suñ ko defoon auparavant au préalable. impliquer tous les acteurs dans ce que vous allez faire. Mm-hmm. parce que tëbu leen tëb rek des encom euh, des des encombrés. Mm-hmm. c'est un programme bu nekk ci seeni projet mm-hmm. au niveau de la ville de de Grand-Yoff ngeen xam ni da ngeen war a jëm ci pavage à quel tel moment parce que le pavage aussi day nekk ci budget c'est prévu dans un budget localité lieux yi ngeen di pavé c'est dans le budget de la municipalité donc xamoon ngeen ni année tel quartier yi da ngeen ko war a pavé parce que dafa dugg ci budget bi maintenant soo leen ko war a pavé mais anticiper parce que la gestion municipale ou bien la gestion du pouvoir c'est de l'anticipation quand même. mais je te l'ai dit tout à l'heure moo tax ma ne la. wax naa la ko sànq ma bàyyi ma terminer si kalu grave de parce que coow li bëri na fépp au niveau de du Sénégal. parce que Thiès yëngu na Grand yëngu na feneen ak feneen yëngu na. ak Colobane yëngu man pour man. il fallait anticiper parce que gis nga il faut jamais faire médecin après la mort moo daloon wakaam ba nit ñàkk ci bakkanam daal ñu toog fii invité leen ne il faut faire un dialogue inclusif au préalable. bés bu ñu ko defee. mais Adama Adama est-ce que Adama li tey di lii du xam nga xam nga xam nga une plus une note d'information ba tout dire. mais xam nga mooy problème bi mais loolu mooy jaaxal gars yi parfois. waaw euh, te même Abdou Aziz ma le dit souvent yëpp dañu koy laajte. la ngay nekk fenn nekk fa marchand nekk fa dara di jaay. Mhm. ñu lay fayloo juuti. te Sénégal bu ñu lay fayloo juuti yow pour yow fi nga nekk. tu as pas d'être là-bas yaa ko moom. loolu aussi je pense que c'est un truc boo xam ne dañ ko war a rectifier au Sénégal. mais xam nga juuti xam nga juuti taxe journalière xam nga soo utiliser place di fa def activité commerce. mais yow sa xel nangu na ni war na nga am na loo war a xam ne da ko war a. waaw maanaam léegi nag kon damaa bëgg ñu dindi moom marchand ambulant comme je dis souvent. doyen un marchand ambulant c'est pas un tablier. <laughs> un marchand ambulant mais mais dafa war a wër. mais mais c'est c'est si vocable la bokk parce que tablier bi kii di toog ak kii di wër peut-être day teg table am di la di la loolu la ñu war a dindi ils sont mais nag kuy fay juuti moom. waaw mais kuy fab juuti day yaakaar ne foofu c'est un droit c'est important li mu wax ni dafa am solo quoi parce que sénégalais bi kaay ma xamal la da abal nit sax mu wéy fenn kante c'est buntu kër wala dara à un moment donné day yaakaar ni moo ko moom moo ko moom ah yow nga joxu la joxu la droit te nag te nag sénégalais yi il faut que li may wax ñu déglu ko dañ ne këru noonu du ndaw ku mer fa la dem tu ne di këru noonu ndeysaan Alioune Badara Cissé moo ñu ko waxoon le médiateur de la république. bi ñu wooloo woon ndeysaan dañu décoré. ñun le collectif ñoo lànk ak waxtaan ak ñun quoi mun nañu këru noonu du ndaw ndax ku mer fa la jëm. Mhm. sénégalais yi ñoo tàmm ku am ak problème lu jëm ci mairie wala ku am opposition. Mhm. ñëpp génnandoo jël problème boobu def ko problème boo xam problème politique la. Mhm. et c'est important. nañu bàyyi xel influenceurs yi influenceurs yi ak mu yenn mouvement yi ak yenn xeexkat nañu xam ni heure liggéey bu jotee malgré nag ñooñu ci population yi lañ bokk mais nañu bàyyi xel manipulation bi nga xamante ni mën na induire en erreur toute une population. te da ngay gis koo xamante ni dafa war a jug pour liggéey kay xeex ak moom pour jot place am. dem vidéo ko wax ci la ko neex. gëm loo loolu askan wi. Mm. c'est ça manque de patriotisme te loolu dafa bëri Sénégal. léegi loolu fi am léegi nag ma gëm tamit heure liggéey bu jotee tamit ña a liggéey dañoo liggéey war liggéey soxna si waxtaan mun na am ñu waxtaan. ñu toog ñu trouver solution yéen ak ñooñu mais liggéey nag dafa war a am parce que bu ngeen liggéeyul tamit ci yéen la ñuy ñëwaat ne leen liggéeyul leen te même personnes yi ñoo koy wax. waaw waaw ñu doon. non non cest gis nga mooy ku yo ki yor xaalis di joxe rek foofu laay waxee moo tax ma ne moo tax waa Grand Yoff mm-hmm. population Grand Yoff ñoom seen biir seen seen seen jëm seen akulayu taala xam nañ ni yaa a aucun élan politique. ci li nga xamante ne moom la la municipalité nag di def mhm. parce que c'est un projet d'aménagement de l'embellissement du cadre de vie et on va paver munoo paver nag artères yi gën a ngal de Grand c'est là le c'est foofu mooy le poumon de Grand c'est le carrefour kuy dugg Grand fa ngay jaar kuy génn Grand fa ngay jaar mënoo mettre des centaines de millions mettre des lampadaires extraordinaires à partir de 19 heures toutes les lampadaires sont allumées jusqu'à 6 heures campagne non campagne ma campagne non c'est pour dire c'est pour dire à la population de Grand ah, c'est pour dire à la population de Grand parce que c'est eux qui ont l'habitude de le dire la commune travaille pour vous dès que la commune travaille pour vous donc su la commune bi di woo ci li nga xamante ne acte citoyen la waroo ci indi leneen loo xamante ne. dafa on a aucun intérêt loolu la Adama baal loolu la leen falee. waaw tax mi ngi mel ni non attends mi ngi mel ni Diomaye nga bëgg fi nekk naan da ko féliciter ba non amul luñ koy féliciter. non parce que loolu lañ la falee. c'est pourquoi j'ai c'est pourquoi j'ai tout xam nga li acte bi nous avons envers ces gens là. parce que ce nos frères. c'est évident ce nos sœurs ce nos mamans. tëbuñu tëb rek xëy génn suñu mairie rek ñëw ne dañuy descendre. maintenant loolu damay poser question. non moo tax lu nekk sax moo tax da parce que man dama jàpp les populations les résidents de la de Grand hmm. bokk bokkul ak ñi hmm. bokkul ak ñi fay jaay de comment ban comportement la ñu am ci acte boobu ngeen posé les résidents. je te dis hors hors résident de Grand résident de Grand les gens soutiennent l'initiative à 100 pour 100. c'est autre chose. et puis oh, ça citoyen grand aujourd'hui même aujourd'hui ces derniers qui qui contestaient di wax et cetera ñoom ñu ngi commencer de revenir à la raison je pense si vous avez suivi hier. oui je dis vous avez vu même parce le que parce que parce que Madiop l'a reçu hier. oui le collectif des des de ces marchands ils ont même appel en disant le maire donc on est prêt. nous savons que li ngeen def nangam ak nangam on est prêt pour jàppale kon xam nga kooku départ donc ñi doon yuuxu noonu noonu peut-être c'est des gens qui de communication am ci xam nga li ma nga la joxee am ñoo xamante ne ñoom ñoo am jikko bu mel noonu c'est le Sénégal que li ma fi ma toog kenn jàpp ni fi ma nekk légal et puis nag sincèrement mbaa pont bi kii ngeen ko désencombré le pont dafa désencombré

une minute une ah, benn. c'est une c'est durant toute une période. ok jusqu'au mois de décembre. c'est-à-dire on veut de de aujourd'hui que la citoyenneté. la municipalité a un rôle qu'il pose maintenant le reste c'est à la population de s'approprier et de faire de son. léegi fexe leen ba bu ngeen dégg bu ngeen dindee ñi na fa teg leneen parce que bu ngeen ko deful li leen dal stade fële la c'est avec. ancien piste nga xam ne doyen c'est avec une très belle équipe que nous avons que nous sommes en train c'est avec une très belle équipe une équipe le matin et une équipe le soir. rapidement rapidement. soxna téeméer yi dama ko yëngal quoi gis nga soxna si aussi il faut ñu waxante dëgg te yàlla tax gis nga di jaay foofu bu ñu waxante dëgg rek ay sénégalais lañ yoo xam ne hmm. dañoo yori famille non dañoo yori famille et aussi boo yoree nit ci sa commune ku mënti doon sénégalais lam daala hmm. tey waxtaan war na mën a jur ñu xool fu ñu leen recaser aussi xam nga man dama indi solution rek parce que koo fi def lu ko metti xeen eh, eh, du ma wax xeen mais c' est un peu compliqué te Sénégal dëkk bi état bi tamit bu bàyyi ci loolu xel gis nga question de l' emploi yéen a wax informel moo yor ñun suñu suñu wàllum xëy. loolu aussi ka mën na indi. waaw non attends mais même ma terminer. mais laissez-moi terminer quand même. waaye ma ma terminer. xam nga xam li may wax ni askan laay waxal rek. que yéen ak ñooñu yéen ñëwu leen pour yàqal kenn ñoom it dañoo jóg pour yóbbu lu ñu yóbbul seen seen seen seen yow mii place bi nga nekk nii nga fay jël def sa gagne-pain bu nit ñëwoon bëgg koo foqar ci ci yow àll l'instant munoo ko wax yow mun laa wax loo dégg daa ngay jàkkaarloog moom. dëgg la non c'est la réalité. Mm. gis nga askan boobu toog foofu. man néew ma waruñu jug néew ma lenn heure liggéey laa jiital ne bu jotee. commune dafa war a liggéey. Mhm. mais Sénégal dafa dafa xam loo xamante ni ci jàmm la. ci dal la ci Sénégal bi nga xamante ni moom moo toog foofu di yóbbul as këram lanu lekk. Mhm. bu ngeen mënee trouver solution pour feneen fu ñu mën a nekk. parce que xam nga tamit defar place bu rafet. Mhm. bàyyi ay nit lekkuñu. loolu aussi erreur la waxoon naa ko Macky Sall ci suñu dialogue boo ñu defalee ay tali or. te suñuy biir feesul amut sens. loolu aussi dama leen koy bàyyi loo xel beneen mooy ministre bi yor collectivité territoriale yi gis nga agent yi di di grève pour mm-hmm. affaire extrait aussi mm-hmm. les sénégalais en ont marre mm-hmm. na ñëwaat ci loolu bu ñuy ñëw ci yéen maire yi aussi manque d'accessibilité daf ci am ci lu bari da gis un maire mu mel ni un président de la république non dañuy waxtaan rek ni ma ko waxee ci député yi mu mel ni un président de la république ci foofu dama gis maire boo xam ne yàgg naa ko xalab yàgg naa ko sonal man muy Seydina Issa Laye très sincèrement parler bërki démb bu matul une semaine dama fa dem c' était la première fois ma teg sama tànk ci mairie boobu. bar non non non non non non damay wax dëgg rek te yàlla tax. ñun ah, dëgg fu mu fee dañu wax ko. may dugg ci mairie bi pour ut benn këyit ma gis ko ci bunt bi mu taxaw di wax ak askan wi. Mhm. man acte boobu. dama ko saluer te dama ko rafetlu. mu neex la quoi mu neex ma te day dëgg ma wax ko. Mm. parce que nit ñi waruñu la fal ba pare nga jafe ci ñoom. Mm. kon Seydina Issa Laye bu defee lool te billahi barki alxuraanu karim c'était la première fois ma gis ko avant ñu doon bokk ay xeex ay mil 2014. lool su ma ko gisee mu doon acte boo xamante ni ubbeeku la ci askan wi dama koy wax yéen it waxuma yéen ubbeeku leen ci askan wi ak ñeneen maire yi man jàpp naa ni lépp lu ñuy war a taxawal ci commune. communication moo ci jiitu parce que ñooñu noonu ngeen di jotal tey ëllëg dañ leen di servir yéen tamit ngeen servir leen je pense que loolu noonu mooy waxtaan bi nga xamante ne c'est c'est c'est idéal quoi doyen donc bon question bu am solo euh, la <laughs> je pense que les mairies quand même travaillent euh, travaillent ñu ngi liggéey mais yàlla problème des marchés déguerpissement bi bëri na mm-hmm. et puis les conséquences sont catastrophiques mm-hmm. honnêtement c'est euh, soo xoolee bon comme euh, ni ñu ko waxee sànq la cest dire que les nit ñi ci loolu la ñuy dundee. c'est ça quoi. donc mairie warul nekk adversaire ki nga xam ne day liggéey. je je pense qu'il ya a cette contradiction qu'il faut essayer de de lever mairie mmh. bon comme tu dis la la de Grand Yoff travaille pour le, les habitants de Grand Yoff normalement le ministère de collectivité territoriale mm. aussi travaille pour les populations. Tout mais il a mm. un problème de gestion des marchés. Mm-hmm. C'est vrai que ya un problème d'insécurité, de problème d'organisation, il y un désordre euh, dans les marchés. Mm-hmm. Il faut moderniser. Mm-hmm. Mais yaakaar na euh, Adama wax na ko sànq c'est-à-dire il faut initier quand la la concertation c'est-à-dire maire bi bi mu bu engagé projet na dem toog ak askanam. Mm-hmm. loolu mooy yoon c'est-à-dire que le marché c'est c'est. Euh, je pense à c'est mon avis personnel le marché est plus important que la rue mm-hmm. parce que le, le marché c'est ça qui crée de l'emploi c'est ça qui fait vivre les populations te même culturellement gis nga marché dans les pays africains c'est un village lu utilité marché chez nous non dafa am solo c'est c'est des liens sociaux culturels solidarité bi bu fa nekk donc il faut pas que ñu am une perception négative du marché donc pour moderniser il faut ñu am la la culture du marché bon je on parlait tout à l'heure des chinois des, euh, des euh, des marocains des, autres mm. mais ñun on a une culture du marché le Sénégalais il est commerçant par par. <laughs> éminemment commerçant waaw xaaral xaaral xaaral xaaral pare xaaral. presque trois à quatre grands marchés le marché de Arafat par rapport à la modernisation bi nga wax le maire dafa marché bi reconstruire ko mettre des cantines et mettre ça au profit mettre ça au bénéfice de ces derniers. à un prix moindre. moi je crois que c'est l'option. C'est ça. C'est vraiment la bonne option. daal nga concerté ak ñoom nga moderniser tu stabilises tu respectes ils vont jouer un grand rôle dans le développement. tout je pense que boobu option boobu moom si si on pouvait même avoir le ministère des collectivités territoriales appuyer initiative yooyu. Hmm. parce que honnêtement moi je rencontre souvent bon des fois c'est gênant. bon ils sont peut-être vingt trente cinquante jeunes boo détruire le marché là gis nga dinañ dinañ fa toog six mois un an. ñoom ñooy ñoom ñooy nekkaat ambulant. parce que ils sont désœuvrés ils sont dans l'errance et loolu ça a un coût ça a un coût social c'est-à-dire boo xoolee les manifs de deux mille vingt et un deux mille vingt quatre la ah, les commerçants ils font font partie de ça. Mm-hmm. Mm-hmm. on a on a mal géré. Euh, donc je pense que ministère bi état bi yëpp war nañu bàyyi xel quand sur la modernisation des marchés et comme on l'a dit c'est-à-dire ñun suñu économie informelle yëpp c'est le marché. Mmh. C'est le marché ah on n'a pas d'entreprise euh, <laughs> petite ou de ou de moyenne c'est le marché c'est l'entreprise. C'est pour mais parce que on a notre pour moi pour moi Adam. gis nga lu chinois. bi ñu def door ñoom bu ñu xeex quarante neuf ba tey jii. waaw non chinois chinois la. non attends je te dis. alors dëgg la pas américain il pas japonais. il est du roy kenn. du rek. boppam rek non si c'est important mënuñu lool. si waaw ñun nag on refuse d'être sénégalais c'est comme ça. non mais si te sa morom bu jóg indi lu baax ci askan wi. boo leen bokkul kii politique nga xeex ko mu yàqu. même bu dee sax ci askan bi dafa baax ci askan bi. dëgg la c'est désolant. te même bu dul politique sax dañ koy xeex. non ci lépp ci ñu ci ah, ñu la bokk parce que da nga naan day am da ciy am dara. c'est loolu c'est profond c'est loolu c'est profond. même boo xoolee à l'étranger. Mm. gis nga nos Sénégalais aux États-Unis wala en France. c'est tu les identifies tout de suite. oui. mais ñun on n'a pas de capacité de valoriser ça on peut pas valoriser ça chez nous c'est c'est extraordinaire quand même mais mais ñu xoolaat suñu bopp seen xoolaat suñu bopp il y a il y a un problème sérieux il faut il faut il faut construire un nouveau Sénégalais nouveau de Sénégalais moo tax ma gëm li mu wax ni fii non lu ma gëm la xoolal c'est une génération. le problème du ah, Sénégal le ko fi ba tey. mentalité moo dul soppeeku le problème du Sénégal c'est les Sénégalais. waaw chaque jour ma joxe exemple. koñ day taa ñu defar état defar égo pour évacuer ndox mi. nit ñi sàcc kubéer gi tool tuur ci mbalit. maa la wax loolu. <laughs> no mbedd day ñëw ah nga ñëw tuur ci mbalit ci buntu hôpital bi daan na mbedd ñu laaj la nga ne mbedd bi mbedd ko fii directeur souvent fii la toog di ko wax souvent assistant c'est ça na les gens ñëw ba ci buntu hôpital bi non si foofu di ko wax leen saaga la ndey et li ci grave après il retourne la balle à la municipalité mairie moo war a def nanga mairie moo war a def moo tax gis nga l'éducation à la citoyenneté là il faut que les gens reviennent si ça il si il faut que si c'est-à-dire n'a pas on peut pas vouloir et son contraire da dem jëli da ngay gis bitim réew des choses extraordinaires tu vas au Maroc mu ngi doon wax ci Maroc nga dem Maroc wala nga dem Cap-Vert mais les gens sont tellement disciplinés. disciplinés. Burkina rek. mais loolu la ñu rawee discipline très propre. non les municipalités ne sont pas fatiguées parce que ku nekk da ngay jàppee sa bopp ni yow municipalité nga. da ngay fexe ba ak maire bi su posé acte danga naan du la si jiitu. parce que ñun tout souvent on parle de ñun Rwanda la ñuy Rwanda Rwanda mais Rwanda c'est la population mooy yàq Sénégal. da ngay gis ku def benn affaire mais loolu politiciens yi xam nañ li may Adama Fall mii day joteeg moom bu nekkee ci nguur bu jotee bokk nekk ku nekkul ci nguur kooku donte bu dee deful dëgg wu def vidéo ne nee li yor doole moo tax mu bëgg ma jaay doole. dëgg la Sénégal na ko waa yaa wax dëgg. parce que ñoom dañuy topp ci. ñun la Sénégal dañoo bëgg di sot mais nag nit ki boo ko sotoo wala dañ koy jàppale dañ koy jàppale ci loo xam ne moom mooy dëgg. mais ñun bu ñu bëggee suñu réew mi avancé. victimisation que ça soit de Senghor mënuñu changer dëkk bi parce que c'est le y a comme ça. ñu ñu won ñu war a nekk. on ne change pas. te gis nga nga tey quel que soit le génie du président que l'on peut qu'on qu'on a. am na loo xam ne mënu koo def ci dëkk bi tant que ñun soppeeku. c'est-à-dire c'est-à-dire parce il faut que génération bi dem yoonam. loolu mooy yoon c'est-à-dire gis nga affaire bi su suñu suñu ci xale yi lay tàmbalee au niveau de du bas âge. c'est-à-dire suñu suñu génération bant bu wow la ba pare munoo ko jubbanti soo ko jubbantee day dam ci bañante ci waxante moom laa wax am na lu ñu mel ba pare. am na comportement yu ñu am ba pare. c'est am na loo xamante ni jàpp nañ ni mooy régler problème yëpp. mooy dañuy mer. Mm-hmm. taal pono pour ñun faj ko ci saasi pour ñun loolu mooy régler problème bi. na leneen duggaat ci Sénégalais yi égoïsme voilà dafa duggaat ci Sénégalais yi ku nekk sa bopp. voici les difficultés bi nga xam ni pouvoir bu nekk en place dina ko dund. quel que soit le pouvoir qu'on peut avoir soit le pouvoir. ñi nekk opposition. ils vont manipuler le peuple ils vont utiliser le peuple contre le pouvoir. ils vont tenir des discours contre a ñëw toog su ñu toogee ñeneen ñi dem opposition il faut pareil pour accéder au pouvoir. mais Adama pour revenir au pouvoir pour revenir au pouvoir loolu moo fi nekk. Adama dagguma la moo tax ñun ñun le mouvement citoyen xam nga lan lañ wax yéen bi ngeen di nekk opposition da ngeen doon wax nañ ba nañ wax yu bon yëpp nëbb yu baax yi ñi nekk opposition démb. bi ngeen nekkee pouvoir dañ doon wax nañ wax yu bon yëpp ñu nit nëbb yu baax yi. loolu moo fi war a jóge sénégalais bu mënti toog da ko war a jàpp ni sénégalais la maa ko war a jàppale bu baaxul nga ne baaxul léegi nag sénégalais bi moo war a xoolaat daane man léegi ñi may fal ak ki may fal est-ce que comportement bi ma war a am ak moom d'abord man parce que sénégalais bi day toog léegi nga def lu baax mais xeen bu mu la xeenoon bërki dem day tax mu na loolu dëgg la saaga la ndey te sénégal bi léegi balaa moo am jàmm ci woy politique yi ci suñu biir mm-hmm. dañoo dem ba suñu bërëbu wutuwaayu xam-xam fii université Cheikh Anta Diop bi nga xam fa la ñu war a utee xam-xam ñu instauré fa ay amical yoo xamante ni bu xeex jotee jaase la ñu yorante loolu politicien bi moo ko instauré Sénégal politicien bi moo fexe yow ba booy wax dëgg mu ne la fexeel ba génne fen boo xamante day muur dëggam ba kenn ñeme et puis nag euh, pensée unique ñu bëgg ñu instauré ko Sénégal ba booy wax dëgg yow booy wax dëgg kii wax fen sax da gën moom da gën a ëpp atu ci ñi et c'est ça la réalité Adama te loolu fii ak dañu Diomaye ak keneen a ci yem Sénégal du avancer beaucoup et c'est ça mais aussi c'est qu'on doit avancer cest à problème bi c'est difficile la ci suñu culture mais à mon avis euh, loolu mooy enjeu changer de paradigme mm-hmm. c'est-à-dire que on est tous irresponsables nous sommes tous irresponsables loolu loolu loolu moo ñu dal neexul a dégg nag ce ce paradigme de l'irresponsabilité collective là il hmm. faut l'enlever jafe indi euh, paradigme bu bees bi non jafewul tu es aussi responsable que moi ku nekk def un effort sur soi-même il faut partager la responsabilité non c'est-à-dire que on n'a pas compris par exemple que on n'a pas de citoyen mm -hmm. faut construire le, le, le, le citoyen. Le citoyen, citoyen, il mm. n'est pas à pair, il n'est pas passif, mm. il n'est pas, il n'est pas, non, il est citoyen. Par exemple, toi, tu es là au nom de qui Au nom du, du citoyen. citoyen ouais. hein? C'est ça que, c'est le problème fort. C'est-à-dire qu'on est trop égoïste. au point que yow soo nekkee ci parti parti bi rek ngay gis. Hmm. si soo nekkee ministre ministre bi rek ngay gis. même boo deful dëgg sax. Hmm. même boo dajee kuy fet da nga ne. non si li def baax na waaw la la difficulté. député APR la il faut euh, hmm. fu ñu jaaroon. il a éducation civique bi. mais si l'éducation de base muy école bi muy enseignement civique commercant bi qu'est-ce qui s'occupe de l'éducation civique des commerçants personne Et je disais tout de suite que waa service d'hygiène service d'hygiène ñu ngi reprendre kii mais même même même même euh, le, le comment ça s'appelle je parlais du service d'hygiène mais le service euh, de truc civique. nu ñu ko euh, sax euh, kii kii bi nekk ministère de la jeunesse. Ouais. service civique national. service civique national. Ouais. mais ils ont repris du service ñu ngi leen commencé di leen interviewer waa di leen wane man dama fàtte woon sax ne loolu am na ci Sénégal. pour am modèle pour parce que parce que ñun état bi dafa toog pro rek école ak université. Mmh. mais éducation civique commerçant bi soxla na éducation civique. na le traditionnel soxla na ko hmm. mais qui gère ça personne te bi hmm. jógee Fuuta ñëw fii avec sa culture ses hmm. traditions keneen bi jóge jóge Touba l'autre et cetera ils ont une culture rurale et ils ont ils sont dans un monde urbain supposé normé c'est vrai donc y un problème d'éducation de base defe naa pour man. c'est possible c'est ça. et, et c'est là où c'est important que nous avions pensé à rencontrer tout le monde c'est-à-dire la question de cette rencontre ce sera le levier ce sera tout simplement revenir sur l'éducation citoyenne. c'est-à-dire que ci biir koñ yi ci ci biir parce que ñooñu ñi nga xamante ne tey on reparle du développement loolu la ñu indiwaat toujours la communauté ça passe par la communauté tey il fallait poser l'acte désencombrer les artères faire comprendre les gens comprendre que aujourd'hui ce n'est plus la c'est pas la politique c'est parce que gis nañu suñu dëkkuwaay bi nu mu mel te askan boobu moo ñuy wax ne nangama na ñun kese ñoo ko mën defal sa kër bu dilimee kan moo la koy bale soo ko balewul te boo ah. balee bañ a sànni ci buntu këru keneen voilà gis nga li ba am mm-hmm. foofu ngay tëjaale foofu ngay tëjaale non non manque de civisme bi xoolal kenn jaarul ci parce que te dañ koo def pour nga ji yéeg mais ñëpp ci suuf la ñuy jaar magal ndaw ñëpp ci dégg gis nga sénégalais ñu man xam nga man ñemewu ma pont man man séeréer laa man du ma yëg ci pont su ma yëgee pont damay wiir paa bi wax dama jaral jël oto taxi mu wiir barki yàlla taxi lay jël mu wiir jaral pour jéggi mais ñëpp ci tali bi jéggi a la chance d'avoir un maire qui est issu des mouvements citoyens moo tax ñoom dañu war a def de telle sorte que tout le converge tout le monde conjugue ses forces pour que Grand Yoff nekk un Grand Yoff attractif li nga wax noonu daal un Grand Yoff nouveau un Grand Yoff vivable. ak yeneen pour dire aux uns et aux autres il comme nous. c'est ça. c'est ça il faut que nit ñi aussi ñu am ñu am ñu am un comportement citoyen aussi ñun ñëpp ñu xam ne bu ñuy defar ñun la ñuy defaral parce que. c'est pas jot na temps bi kay jot na moom koy la ñuy tàggoo eh Adama Fall waay nee ma tey moom mooy wax temps Adama da am programme. ah bon Adama am na fu mu jëm. non amul fu ma jëm sax xam nga damay bañ gars yi dagg ko da ngay bañ ñu comme nit ñi defoon ah gars yi defan yi moom. te fan yi waa team kii ñoo fi nekk xaru. xaru ah ñëw nañ ils ont repris service. Mouhamed mi ngi fi. Ah, moom benn nit la sax moom ànduloo kenn moom. <laughs> ayca mu ngi noonu gars kontaan ne waxtaan. ñoo vraiment ñu vraiment ñu ngi amaat yaakaar fii léegi ci kanam incha allah fekk gouvernement bi gën a commencé liggéey ñu gën a xool. xoolaat waa Grand Yoff xoolaat waa Patte xoolaat toutes les communes. Sénégal xoolaat parce que Sénégal ba xam liggéey bi fan la jëm te nga ñëw ci tabaski ñu waxtaan ci soble bi. soble bi aussi foofu li may tëjee. na nga ñëw de. li may tëjee mooy question de patriotisme la Adama. <laughs> soble bi màggal gële we kii woon na fi lenn la rek ay sénégalais ñoo jël denc ko ba mu cher di ko jaay seen moroom mu sénégalais du cher mm. état mënu ci dara xanaa contrôle bi dafa des. ah sénégalais bi noo attends. sénégalais bi mu indi jafe-jafe moroomu sénégalais. waaw mais aussi y' a y' a des problèmes ah. dans non non xaaral dama ciy teg dama ciy teg leneen. Hmm. secteur u soble bi. muy ceeb muy diwlin fii ak sénégalais yi jëluñu seen destin en xam ne ceeb fii ak keneen mi ngi la koy jox heure bu ko neexee mu téye ceebam duñu régler suñu suñu suñu autosuffisance leneen li mooy li papa ji wax laay tëjee ñun du collectif ñoo lànk jàpp nañu fii ak bi bi nga xamante ni moo fi toggal askan bi jugul jug pour defal askan bi keneen ki ko noonu politiquement fii jugul pour jàppale ko ngir askan waaye keneen ki ko noonu day xool nu mu ko yàqalee ngir moom nu mu toogee place am fii ak loolu jugi fi Sénégal du gaaw defal doon na waaw daal je pense que loolu daal laa mooy problème yi nga ay problème profond la yoo xam ne ñun dañ ciy war a. mais jëlal ñëw ci suñu. ci soble bi ci soble bi waaw yi dañuy béy soble ba pare ñun duñ ko consommé bu ko defee ñu koy gas di ko suulaat parce que amuñu fuñ ko ko transformé. amuñu bu bees bi ne woon na yooyu yëpp da koy réglé kay. on attend de voir en tout cas dinañ ci waxaat incha allah ak wàllum xar beeg yooyu Paul euh, Richard Mendy Mourtala je sant di am yaakaar ne projet fi ngeen toll instant bi dégg piir ngeen yéen a ngi bëgg a defaraat xëy na waxtaan bu kii di ngeen dellu ñu gën a defaat le point. voilà merci en tout cas merci beaucoup. Euh, pour mm. opportunité bi ngeen ñu jox. ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant di sant askanu mm. mm-hmm. euh, euh, baax de sécurisé voilà surtout loolu tamit seen problème la surtout les waaw dafa la sécurité baal leen ma du may jaar grand yow falaa dëkk sama turandoo mu ngi fa. waaye c'est une compétence régalienne en tout cas nous ce que nous devons faire on l'a fait. nice on a mis plus de 8000 points lumineux. grand yow waaw grand yow dafa c'est la ville la plus éclairée. en tout cas doy na waar daal magistère de Madiop. non tout ce que je sais monsieur Madiop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu waa kër il joue bien son rôle il joue bien son rôle très bien son rôle parce que le chef de cabinet est éminemment politique. merci beaucoup ba suba ak jàmm incha allah. incha allah merci Adama Fall doyen. merci beaucoup à demain incha allah merci à tous merci. à la régie euh, ñu ngi leen di sant di leen di gërëm rendez-vous demain 11h incha allah. merci.